السلام عليكم بكتالو بي نوغي نيانال شيخ سيدي المختار يالنا في ياغ مباكي لول تيوير خام يين نيو نون نك تاي غابون في ما دكار لوك يين يين غيس سما غيناو جمعي سيغ بامبا جي في موي مونتان تانس في لا خادم الرسول نيكون بو بو رومبي جمعي جي توتي داغا غيس تين بي سي بير كربام نيكي في غيسول كوني داما ني موني تاي نك شيخ محمد البشير مسرني عبد القادر نيونا تاي مونتان سنس mi ngi ci biir jumaa ji ñi ngi waajal jumaa ji xam nga fii Cheikh Mahamadul Murtada góor yàlla ibnu xaadim rasul moo ko toj fii doomam ju baax ji moo fi ñëw sëriñ Maam Mor bu Cheikh Ahmadul Murtada tey rakkam ji ñëw na fi nag Cheikh Mahamadul Bachir mu sëriñ Abdul Xaadir ànd ak njabootu sëriñ Tuubaa yëpp lan moo waral dañuy ubbi màggal gi màggal gi fuñ ko ubbee jaadu na waaye fii fii ci Gabon la ware yoon wi ak tukki bi Gabon la fii la Serigne Touba jóge wàcc Sénégal indi Serigne ci boo xam ne bii ndab loolu ba léegi kenn jeexalu ko kon bokki taalibe yi ñëw nañu ànd ak télévision Sen TV wàcc nañu noo ngi jàkkaarloo ak jumaa ji nga xam ni ah taalibe sëriñ Touba di Cheikh Amar bu Gabon ak taalibe yi nekk Gabon yëpp ñoo àndandoo def jumaa ji liggéey bi liggéey bi ànd na ma ak Cheikh Amadou Mourtada seet si na ko ñett yoon at bu fi sëñ bi wàccee bu xëyee بلا ديف دار دا فاي نيو خول جمعه جي مون يالنا سوتي سي جام جمعه جي نك سوتي نا ما مورتاوم با جيتي نكو تاي جي سيرن سيرن بشير شيخ عبد القادر مكي نيو نفي في لا نيو بي ماغال توبا كون ني ماي ديف اند اك يين تابي سي بير جولي جي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الله اكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين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 الحمام يحمل أصفارا بئس المصير يأتي الله والله لا يهدي قوم الظالمين قل ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم عليم الغيب والسلام فإن ما كنت سمع الله لمن حمده ربنا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 السلام عليكم السلام عليكم هيا زمن لا وين muy mbokk muy xarit muy lépp ñëw nañu daje fi Serigne Touba doon jëlee natt bi ngir ñu seede natt boobu le xam ni si Amadou Bamba la mu waxoon démb tey ji gisaat nañu ko lam noonu yàlla danaan ma taxawul te dina ma dimbali noo ngi ci montagne sel gi nga xam ni dafay wax ni keroog bi mu fiy ñëw bis la boo xam ne nii bu ko fàttalikoo moo bis yi ca Ndakaaru ñoo yem xelam day dem ci jihaat waaye bisub tey bii xel nekk na ci feet nun ñëpp. kon jihaatam jooja ak tartar jooja wàññi ko ne di ak xiiwal xiiwal foo ko muñee yàlla def ko mu di ak xiiwal kon Serigne Touba jàngal nañu muñ bi nu ñëwee fi nga xam ni tartar yi nu doon seetaan ñu def fi jumaa ju rëy jii fi ñu doon sempee bantam yi di sànni tey ji ñu def fi jumaa ju rëy nii ju taaroo nii ju toll nii ci wàllu seeraay ak wàllu avancé nan yàlla nan noo noo ngi taalal sunuy loxo suñu borom tabaraka taala mboolem ñi ko fi samp ak ñi ci bég yàlla defal len xiiwal yekati len bañu guddeni soror bi ci dara yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te yagal len fi lo nak te yagal fi seex Mouhamadul Basir ak mbollem ñiko ko yónni muy serigne bi di cheikh mohammed Mukhtar mi nga xamne modi khalifatul amli taifatul muridiyya yàlla degeural taxawayam agale ay yenem ci bir diine jeek yoon wi no ngi gërëm ñëpp di la gërëm nag sëñ Ablaye ci taxawu bi ak liggey bu rafet bi nga xam ne def nga ko alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh seigne fallu fi nu ne tay moy fan. Euh, euh, Assane Abdoulaye fii de ginnaaw bi ñu nuyoo mbokki bi yëpp siyaar leen fii mooy Libreville fii ñu nekk nag di Montagne Sainte di béréb boo xam ne lisaanu xaalu béréb bi rek wax na boppam ku fi ñëw tey gis jumaa ji fi nekk ak mbooloo mi da xam ne am na lu fi xewoon danga xam ne it góor yàlla nekkoon na fi ku doon liggéeyal yàlla ba am nga demal yàlla itam mi ngi fi woon muy suñu yaakaar Seexul Xadim muy béréb boo xam ne bi sëñ bi ñëwee ci réew mi fi la ëpp lu mu daan nekk lu jiitu muy jóge fii ci capital bi di dem ba ak na waaye li fi xew bari lool ci gën a am solo di ay nattu yu tiis yu metti yoo xam ne suñu borom teg na ko jaarale ko ci ay noonam mu bokk ci nattu yooyu ci niñ ko nettalee ci borom xam-xam yi ci bind ak li ki sëñ bi nettali muy eh, jéem a boom buñ ko doon jéem a boom fii ci béréb bii te loolu di loo xam ne bañ ko jéemee it sottiwut ndax boolem fu ñu ko mës a jaarale wala ñu mës a jéem a génne ba kanam ci àddina yàlla du ci ànd suñu borom bi dogal fii itam mu intervenir feeñal fi àndandoom yooyu nga xam ne keroog bi mu génnee Mbàkke Bari fi mu jaar fépp ba agsi fii mësuñoo tàggoo moom muy ahlu badrin mu feeñal leen fii suñ borom sëñ bi bind ko wax ne fii fi Libreville la ma yàlla yombalalee loo xam ne mom la doon bëgg diko diko wut diko mébét te loolu moy lo xamné ump na bépp wali bépp góor yàlla bu mas a liggéeyal yàlla ak ku mëna doon rek yàlla suñu borom neub na la noola loolé nak moy lan mune moy mooy wammatal gu ma wammatal fii ahlu badrin ñu feñ fi ci béréb yo xamné ne béréb bi lëndëm la béréb bi kéfer la béréb bi caay caay la itam lolou mom lu wér la motax mo ne yasara lil muna lada daa libar wali man qaadali ma ghaba an kulli wali daal di koy firi nag ne lii qaada ahla badrin al usuda man zahzaha al washiya wal hasuda loolu daal bokk na ci fi xew ci tënk rek ndax dafa xat te borom xam-xam yaa ngi fi ñu ngi siyaare ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah yaram daw na sama xel dem na Cheikh Mahamadul Moutada góor yàlla ki tasaare diini ji ci Afrique ak ci Europe bu lii mënee am tey grâce Cheikh Mahamadul Moutada ibnu xaadim rasul Cheikh murtala liggéey bi mu liggéeyal yàlla dara desu ci liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba dara desu ci domam ju bax ji jaar ci tànkam Serigne Mamour mbake waye tay nak Cheikh Mamadou bassir mo Serigne Abdoul Khadir yili may tay bu ëllëgee Cheikh Sidil Makhtar borom ganna borom Guy Mbind borom mbake kadior borom Touba yebal suko fi nañu ubbé magal gi Gabon Gabon lañ ko waroon jëk ubbé sagam na ci wala ndoowaa daanu ci ten ba ma sañ ci pind ba Gabon rek waral ciowli li Gabon nga waral yoon wi Gabon nga waral ciowli Gabon la sëñ Tuubaa ñëwoon indi sëriñ ci bopp ndab li bi mu ko tegee ku ne sukk na te kenn mënu koo jeexal kon minal ilaahi nooru bamba jago kurwaalo sinda nooru bamba jaarak noonu yàlla jëhra fil bari wal bari wana la dëhra saytaane bànneex duniya ku fetal daaneel nga noonu yu bon yaa bamba jaarak ñoom yaa du nafsi kon tey noo ngi ci teen bi ci kanam tuuti bu sëriñ bi génnee bañu topp programme bi lépp luñ leen fi jëlal incha bi bu neexee yàlla daañu ko envoyé Sénégal seen mbokkum taalibe Abdoulaye Mbaye Touba Pex Géwél Xaalis Morsool seen TV montagne seen